jërëjëf jëf ñoo ko déggandoo moom mi nga xamante ni rek ay moom nag moom moo doon yëkkati ay kàddu noonu